ginaaw ni yow bi euh, ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax ci fajar gi ci wuy njàngatum information yi di li nga xam ni mooy mbégte mi nga xam ni Argentine gi yëpp fanaanoo nan ko démb di mbégte moo xam ni daanaka bariwul li muy am ci football madame Messi nekk jigéen ji nga xam ni ci àdduna bi wala ngal kàpp démb mooy jigéen ji nga xam ni moom la mbégte saawaan ci moom moo xam ni daanaka mbégte moomee xamul nu koy def mbégte moomee jaaxal na ko lool waaye dogalub yàlla sunu borom bi nu ne lay dikke ci doomu aadama gone yu heureux gone yu kontaan ci seen papa joo xam ni jom ak fulaak fayda yombul papa ju mel nii nga xam ni li muy wane ci wàllu futbal wane ko ci wàllu dëkk bëgg dëkkam képp kuy ak nit wala ngay doomu aadama war ngaa roy ci ngàttaan bi nga xam ni moom lañ naan Pulga l'une des meilleures sœurs du monde meilleur joueur du monde moom ah, kenn jaaxleetu ko ah, ci li nga xam ni mooy Messi wala kenn dootu ko jiixi jaaxa ah, ci gonek argentin gi nga xam ni démb jël na li nga xam ni mooy bile coupe du monde tegal ko ay doomam seeni doom mën a am ci ñoom bàyyi goo xam ni bu bàyyee football dana ko am ci ay souvenir yoo xam ni moom mii di Messi souvenir yoo xam ni dootu ci fàtte dara souvenir yu riis souvenir yu am solo souvenir yoo xam ni bànneex moo ci ëpp ndax lu ñuy teg ci àdduna bi moom mii di gone gi daanaka jël na ko dernier matcham finalu coupe du monde yi nga xam ne jàpp nañ ni bii mooy dernier matcham jël na coupe bi jël trophée yi nga xam ne yu bari la daal di koy teg def ko ndiiraan gis ngeen ko trophée bari na wër na ko ba kenn mënut a xam ni ñaata la ci trophée mu nekk loo xam ne mbégte la ñu ñaanal ko lépp mu jik ay tawféex équipe nationale bu Sénégal bii ngeen gis ko mooy fukkeelu équipe bi nga xam ni moo gën a xarañ ci coupe du monde bi loolu la këlkin bi nga xam ni euh, FIFA joxe na ko loolee tamit euh, di lu am solo beneen bi mooy euh, Sénégal kaaf boole na ko ci ñi nga xam ni ñoo war a organiser li nga xam ni mooy coupe du monde bi nga xam ni moom la ñu mal wala coupe d'Afrique bi nga xam ni moom la ñu dëgmal danañ ci ñëwaat ci ay leeral bu ngeen ko déggee mooy Euh, équipe yi nga xam ni def nañ ay euh, bëgg ko organiser euh, jox nañ Sénégal mu bokk ci ñu ko bëgg a organiser